mbokki taalibe yi mbokki Touba Fall Mbuxeex ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci nuyoo bi gën a rafet ci jullit jëm ci ay mbokki jullitam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nu ngi jiital ci kàddu yi sant yàlla sunu borom bu baax ci ngëneel gim ñu defal ba boole nu ci guddi gii te nu nu ëpp solo ëpp nu xam-xam ëpp nu man-man ëpp nu kàttan ëpp nu lépp fekkewunu ko ñu ngi ci barzaq mu bàyyee nu fi ab diir ba nu mën a fekke lii yàlla nañ ko yàgg a fekke te yàlla nu yàlla nangu lépp li mu digee ci ku màggal ki mu màggalal boppam di yenantu bi alayhi salaatu wasalaam nu ngi ñaanal sëñ Muntaqa Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal mboolem njabootu Cheikhul Xadim gépp di ko ñaanal weejuram bu baax wi sëriñ Mamor Mbàkke Masamba waaye di leen ziyaara bu baax sunu sang bu tedd ba sëñ Moustapha Masamba bokk ci ñu dippee guddi gi di ko fàttaliku mu nekkoon keno bu mag ci njabootu sëñ Masamba di keno bu mag ci lislaam di keno bu mag ci kër Cheikhul Khadim yàlla na yàlla sàmm njabootam gépp te sàmm taalibe yépp di ñaanal bu baax sëriñ xaadin mi nga xam ni mooy imaamu dëkk bi bokk ci njabootam nu ngi koy ziyaara di ko nuyu mu nuyul nu kilifa yépp yim fi teewandool gis nañu sëñ Oweysu di sunu xarit di sunu soppe nuyu seen mbokk yi nu feggool yépp bàyyiwuñu kenn sëñ Abdou Razak ñépp ñu ngi leen di nuyu di ziyaara bu baax sëriñ euh, Lamine Naar Diop bu baax ma leen nga xam ne surtout sëñ Mouhamad Lamine Diop dagana la at mu jot nu fekk ko fii mu am taxawaay lool yàgg ak sunu wéejur wa waaye matal kóllëre at mu jot nu fekk ko fi muy kilifa di nuyu bu baax a baax sunu mag yu baax yi nga xam ni sunuy xarit lañu bi sëriñ Mahmadan Fall ak sëriñ Modou ak seen rakk yépp bàyyiwuñu kenn di fàttali ko sunu rakk ji nga xam ni dañ daan bokk jataay bi muñ ci daan soññi bu baax muy maam Cheikh Issa Jenn Fall ku ne xam ni sunu soppe la woon daan sonn lool ci bis bi yàlla na ko yàlla dool dolli tawféex ci barzakam ginnaaw buñ ko ñaanalee sunu baay bi nga xam ni moo sas sos liggéey bu am solo bii toqi ñu ci ba ñu mën koo taxawee at mu jot muy sunu baay alaaji ma Fall yàlla na ko yàlla dolli leer euh, dolli ko ngërëm dolli ko tawféex te sàmmal ko njaboot gi yépp ak dëkk beeg ñi ci dëkk bi yépp di fàttali ko sunu baayu bopp sunu xarit baay Seex Fall maam say bii doomam ju baax ji di waxtaan léegi sama yaram dafa daw waaw Euh, kooku kenn la woon ci man fu nekk fekk naa ko fa fu nekk fekk na ma fa waaw sunu jataay bu mujj daal bii mujj sama kër mooy sama doom bi ma tudde maam Cheikh Rafal moo ko tudd si waaye keroog bi ma ne ma ko joxee tur yi ni ko Cheikh Ibra daa daanu jël sax waaw ku baax la woon yàlla na ko yàlla fay ca barzaqam te dolli ko leer bu baax ak njéggal ñu ngi nuyu sunu baay jaaja mbay sunu baay jaaja mbay moo Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mu sëñ Baara ku ne xam ko ci taxawaayam ci Kébémer ak li ko wër lépp nu ngi koy ziar bu baax di nuyu bu baax soppe yi ak kóllëre yi ak sang yi ak am di jàmm yeeg dëkkandoo yépp bàyyiwunu kenn buñ toogee di lim duñ fi jóge waaye ñépp rek benn wàccuwaay lan am ci nun di sant bu baax ci guddi gi nga xam ni féex lan ci am ngir màggal ki nga xam ni yàllaa ko njëkk a màggalal boppam maa ngi koy wax ci waxtaan yu bari boo seetee téere bi gën a mat ci téere yi te gën cee matale bàyyiwul dara muy alquranul karim di téereb jullit yépp di waxi boroom sëñ Tuubaa wax na ni wenn arafu alquran moo gën ki ni màggalal ci guddi gi yanant bi ndax xam ngeen ni alquran waxi sunu boroom la ci sunu boroom la bàyyi ko directement amul dara lu mu omettre amul lu ñuy wax fii la alxuraan fàtte indi lépp wax na ko alxuraan bu nu seetee yàllaa ci njëkk a cëral ngën gi mindee fenant bi alayhi salaatu wasalaam ni ci yàlla di waxeek moom du ko waxeek beneen ndawam bu ñu seetee yenant bi yàlla ëpp lu mu tudd ci alxuraan mooy yenant yàlla Muusa alayhi salaam alxuraan tudd na ko 136 fois téeméeri yoon ak fanweer ak juróom benn te yim ko tudd yépp daf koy sàllalu yow Muusa la koy wax te yàllaa ko sàkk sàkk ñépp waaye da koy sàllalu ci digg bi lay jaar yow Musaa ka ca topp mooy yenentu yàlla Ibrahima alayhi salaam alxuraan jaar na ci aw turam juróom benn fukki yoon ak juróom ñeent 69 fois te yépp yàlla daf koy sàllalu ci turam lay jaar te mënoon na koo yem yow sama xarit bi rek yem ci waaye da koy sàllalu yow Ibrahima la koy wax kaca topp mooy yenentu yàlla Noohin alayhi salaam alxuraan tudd na turam 43 fois muy ñeent fukki yoon ak ñett yàlla sàllalu ko yépp ka topp mooy yenantu bu ñuy wax yenantu yàlla yuusufa ak yenantu yàlla lóot ñoom ñaar ku ci nekk alxuraan jaar na ci saw tur ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar 27 fois ka ca topp mooy yenantu yàlla isa isa ibnu mariam ak maam aadama ku ci nekk alxuraan jaar na ci saw tur ñaar fukki yoon ak juróom cinq fois te yépp yàlla dafay jaar ci seen tur sàllalu leen ka topp mooy yenantu bu ñuy wax haaruna alxuraan tudd na turam ñaar fukki yoon ci biir saar ci alxuraan ci saar yépp muy vingt fois ña ca topp mooy isaaqa ak soleymaan ku ci nekk alxuraan jaar na ci saw tur dix-sept fois fukki yoon ak juróom-ñaar ña mooy yanant bu ñuy wax yanqooba ak daawuda ku ci nekk alxuraan jaar na ci saw tur tudd la fois fukki yoon ak juróom benn sàllalu leen ka topp mooy yanantu bu ñuy wax yenentu yàlla ismaila alxuraan tudd na ko douze fois fukki yoon ak ñaar ka ca topp mooy yenentu yàlla Soyibu alxuraan tudd na ko onze fois fukki yoon ak benn ka ca topp mooy yenentu yàlla saalix alxuraan tudd na turam juróom-ñeenti yoon muy neuf fois ñëw ci Zakariya ak Hóot ko mu tudd la sept fois dem ci Yaxya tudd ko cinq fois juróomi yoon ñëw ba ci Muhammad mu tudd ko ñeenti yoon kon loolu mat naa jàngat seet ko yenent bi moom alxuraan mu wàcce ko ci moom muy sëri caam gënal ko ci mbindeef yépp yàlla ñeenti yoon la jaar ci turam ni ko muhammad beneen bu ci doon mën na ko woowee ci woowin woo xam ni jàngkat yi dañuy xam ni damir jii ci sang bi la jëm xam nga bu nee wa yasalunaka danañ la laaj kajooju ci yenantu bi lay dellu noonu dani ko dinañ la laaj yow muhammad waaye du ko wax lool dinañ la laaj yow muhammad wa yasalunaka anil xamri wal maysir wala wala yasalunaka anil ruux nga xam ne yenantu bi wax nañ laaj ci ruu wala dinañ la laaj ci kart xaalis wala ci naan sàngara mais kaj yi moom moo ko moom ba mu ne yaayuhan nabiyu e eh, yow sama yanantu bi e yow yanantu bi yàlla bi yanantu yàlla muhammad lay waxam ba mu ne yaayuhan rasul yow mi ma yónni yanantu bi lay waxal bam mu ne wa min ka ñam ca teg ñépp daa jaar ci seen tur ci sootul ahzab muy ibrahimaak musaak musa ak isa muhammad ñëpp ba mu des muhammad ñëpp dafa jaar seen tur nooyin waaye muhammad dani ko wa minka ci yow ngir war ma ji ko yàlla jox bu ñu xoolee yaasiin yanant bi lay waxal taaha yanant bi lay waxal kon ci place yu bari ci alxuraan foo ci dem yàlla day sàllalu ñépp mais buy wax ak yanant bi da koy jox war ma moom yàlla mi ko sàkk war ma jim ko jox moo tax du nangoo jaar ci tur wi lu dul ci circonstance yu leer ci lay jaar ci turam benn bi di ngeen ko fekk ci suuratu Ali Imran aya 144 wa ma muhammadun illa rasulun xat xalat min xablihi rusulu foofu dafa jaar ci tur wi ba ca topp di ngeen ko déggaat mu jaar ci turam ci saar wu ñuy wax sootul ahzab ma kaana muhammad aba ahadin min rijalikum foofa dafa jaar ci turi wi ba ca topp mu jaarat ci turam ci suratul xitaal mooy suratu muhammad alladina amanu wa aminu salihat wa aminu ma nuzila ala muhammad mu jaar ci turu muhammad ba ca topp mooy suratul fathi mu tëje ko muhammadun rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkufar kon alxuraan ba mu jeex ñeenti yoon la yàlla jaar ci turu ngën gi mbindéef ngir wor ma jim ko jox bu ngeen demee ci wu ñuy wax sóotu saffi tudd na ko ci weneen turu wu ñu koy tagge muy ahmad kon wor ma jooju yàlla jox yenantu bi yàllaa ko njëkk a màggalal boppam ki ñuy màggalal guddi gii yàllaa ko njëkk a màggalal boppam guddi gii nuy màggal tam te yenn mbokk yi din bëgg a ray ak bidan bidan bidan yanantu bi téere yépp maase nañ boo demee ci buxaari ak muslim ni daan na ko wooral boppam altine ak alxamiis bañ ko laajee ni ko loo jublu ci woor gi mu ne alxamiis ci la yàlla di jël jëf yépp di ko fay moo tax ma taamu di ko woor altine nag dama cee gane àdduna man muhammad kon ndeke moom bàyyi woon na xel bis bi mu gane àdduna di ko delloo ci jaamu yàlla sante ko boroomam ma wax ni tey ku nekk am na anniversaire ku ne da ngay dégg sax 11 mais ñu ne Bob Marley la ñuy fàttaliku lu Bob Marley doon def reggae man la woon da daan woy rek 11 mai bu jot dañ koy màndargaal waaw ñun kan moo gën a yay ci ki tax yàlla sàkkunu ñu fàttali ko bis bi mu feeñ kan moo gën a yay ci ki tax yàlla sàkkunu ñun ñépp nga xam ne lu feeñ ci dara jaam la feeñee ñu fàttaliku ko kan moo gën a yay ci fàttali ko gane àddunaam ki sëriñ Tuubaa jël dundam gépp jox ko mu yenantu yàlla Muhammad sëriñ bi ni muy waxeek yanant bi amul ku koy waxeek moom ndax war ma jim ko jox léegi-léegi sax nga gis ñuy sànni ay xeer fekk ñàkk a xam mbindu sëñ Tuubaa la wala boog ñay wax duñ leen wax ni sëñ Tuubaa doon taggee yanant bi waxin wu leer ñu xam ko demal ci téere bu ñuy wax fatxul mukarram da nga fekk nan la sëñ Tuubaa doon waxe ak yanant bi alayhi salaatu wasalaam nee na xol bu ngeen gis xol ba jéngul jëm ci yanantu yàlla muhammad xol bu ngeen gis nanguuta buur dem ci yenantu bi nee na xol booba dafa feebar marida qalbun laa yamiilu li nabi saahibahu li raxabin aw rëhëbi sëñ Tuubaa nee na bépp xol bu nanguuta jeng jëm ci yanantu yàlla muhammad di ko sopp di jëm ci moom mu ne xol boobu dafa feebar ci amee xol bu nanguut a jeng jëm ci yanantu bi yaar a koy dal fu mu toll day ñeewaate lu am dara bi ci topp tam fu mu toll dafay tiit dootul am tranquillité xol bu jëmul ci yanantu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam sëriñ bi dellu wax ni aka neexoon man sëriñ Tuubaa aka neexoon ma jël sama lex bi gën a cher ci sama kanam def ko ci ndëggu tànku rasulullaay mu seey ci diggante boobu fi tànk bi yanant bi di tegeeg suuf si aka neexoon sama lex seey foofu xool leen ni sëñ bi toll ku ko jaral jooju wax ku dul yanantu yàlla Muhammad amul mu ne aka neexoon sama lex ma seeyal ko mu jeex tàkk ci diggante ndëggu tànku rasulullaay ak suuf si muy joggi yaa layta nii maraxtu taxta xaddami xaddiya aw laxasani bi karami aka neexoon ma seeyal sama lex man sëñ Bamba ci diggante tànkub yanant bi ak suuf si muy joggi mu dellu waxaat ni aka neexoon aka neexoon yanant bi yëkkati tànkam bëgg koo teg ci kaw dég wala bëgg koo teg ci kaw jiit wala bëgg koo teg ci kaw jaan te sëñ Tuubaa man xaadim rasul sama lex teew ñu ni ko kon nooy def Mbàkke mu ni sama lex kon laay jël lal ko comme basang moom bu yeboo sama lex boobu dég bi jam ko jiit ji fitt ko waaye tànk ko yanant bi dina mucc sama lex protégé ko xaddi wiqaayatun li rijlil muccaba min shawkatin wa ma yudaahil aqraba sëriñ tuubaa dellu wax ni xaddi jaaltuhu turaaba naalihi yaa laytuhu lahazani bi fadlihi nee sama lex def ko mu mel ni suuf si nekk ci diggante dàllub yanantu bi dàllub yanantu bi fi muy jog yàlla na nekk sama lex man Cheikh Ahmadou Bamba nee na moom sëñ Tuubaa yaminu rabbiya mazaarul mujtaba afdalu min mil i bilaadi dhahaba sëñ Tuubaa nee na Espagne li muy rëy rëy nga boole ci France boole ci Angleterre boole ci Mexique boole ci États-Unis d'Amérique cinquante états yépp boole ci France boole ci Allemagne jël Autriche jël Hollande jël Burkina Faso boole ci male Côte d'Ivoire jël Guinée Cameroun dolli ci Afrique du Sud dolli ci Lesotho jëlal dëkk yépp ci àdduna bu dee deux cent dëkk ñu ne ko waaw mu ne nga feesalal ma lépp ak or nga defal ma lépp wurus or ba mu fees dell ziyaare bërëb bi yanant bi tëdd moom ma dàqal or boobu njëggal boobu wax réew yëpp la wax ñu jul ñu duy ko urus ba mu fees man Cheikh Mat Bamba ma taxaw ci rawdo do bi xool ko moo ma dàqal nga jox ma réew yooyu yëpp mu fees ak urus yaminu rabbiya mazaarul mujtaba afdalu min mil i bilaadi dhahaba foofu la toog fekk yanant bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun salla alayhi rabbi man sëñ Touba sama yàpp yaram bu feebaree sopp yanant bi moom ma koy saafaraal man sëriñ Touba sama xol bu tawatee sopp yanant bi mooy sama saafara kon yàlla na ma yàlla di jullil ci yanant bi di sërmal ci moom bu nu joxee wor ma ji rek yanant bi moo wax ni ku ëpp loo julli ci man ëllëg yaay gën a jige wàccuwaay ci sama jëm loolu sans contestation sëriñ Touba ëpp lu mu julli ci moom ndax bu nu demee ci lim bind ci moom am na ay xasaayit yoo yëpp ay salaawaat lañu ñun taalibe yi yaakaar sëñ Tuubaa kenn mënu ko jeexal taalibe bu mekk mën naa jaar penku ku lay jaar soowu ku ne topp mbind moomu te doo ko jeexal xoolal durusam miinu ni ci def xeetu julli yooyu xoolal Kënzul Muhtadin ni ci sëñ Tuubaa def xoola Fawzul Mutiin li mu ci def xoola Bidaayatul Xitma li ci sëñ bi julli xoola Mafaatihul Bishri li mu ci julli xoolal jaalibatul maraaxibi li ci sëñ Tuubaa julli ni mu toll xoolal salaatul awliyaa liñ ci julli mën nga ci indi yu baree baree bare bari te lépp ay julli ci yenant bi la te doo ko jeexal mu wax ni at mi séddale naa ko fukki weer yi ak ñaar juróom benn yi dama koy julli ci moom juróom benn yi dama koy tagg salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta ma ànd àndaa leeg di ko roy nag fi mu tegoon tànkam ci sunna foofu laay roy man sëñ Touba duma ko wàcc nga xam ni waxuma la sëñ Touba waaye mag ñi mu defaroon ñépp ci loolu lañu nekkoon roy ko ñii toog seen maam ma sàmba moom doy na ndax sëñ Ibrahima Diop almasar yi moo wax ni bu sëriñ Touba nekkul woon ci jamono kon sëñ ma Massambaay nekk sangu jamono ñépp bu sëñ Touba nekkul woon ci jamono sëñ sëñ Ibrahima Diop masaraw man nag waxuma ko damay nettali waxam su sëñ Touba néewul woon ci jamono Cheikh Massamba nekk sangu jamono jëpp di seen imam ngir comportement nga xam ne Cheikh Massamba bi mu génnee àdduna 1942 malaayka yi dañ ko doon jooy xoolal nag boobu martaba ni mu toll dem ba malaayka yi sunu borom yi di la jooy ngir sa génn àdduna sëñ Abdul Karim Touré moo ko wax nee na malaayikullahi fi afaqihim la bakaw ala lazi xat xawaa kullal karamati nee na malaayka yi sunu borom yi ñoom ñëpp jooy nañu sëñ Massamba ci gox yëpp ndax Seex sàmba làqoon na xeeti jagle yépp ak xeeti teraanga yépp ci sëriñ Tuuba sëñ Ibrahima Diop almasor yi waxaat ni Seex Masamba day ñu ne waaw mu ni féete na kaw boroom ngëneel yi boroom ngëneel yi leen féete kaw ci ngëneel ñi tabe sëñ ma sàmba leen gën a tabe soo koy tëkkale doo ko tëkkaleeg ku nay déedéet da nga naan ñi tabe bi ñu dajee ba noppi sëñ ma Masamba ci gën a tabe faaxal afaadila ahlal juudi wal karami masamba mbàkke kasirul ilmi wal xikami ñi am xam-xam moo leen gën a xerañ ñi tabe moo leen raw ci tabe boroom nga ñëli bi ñu dajee sëñ masamba ngi seen kanam sëñ ibrahima jooba ko wax nag ku xama koy wax nag boo ko teg man samay wax waxi ku xama koy wax koo xam ne ab seex la boroom xam-xam la defar nay diiwaan làq na ngërëmu sëñ Tuuba boroom nga ñëli bi ñu dajee sëñ masamba ngi seen kanam te loolu ñépp a maase wax ak tabeem ak xam-xamam bu bari mu ni zikrul muhaymini fil awqaati daydunuhu wa shukru aadatuhu fil fi'li wal kalimi mu ni sëñ Masamba de melaw yi mu yoroon mooy tudd yàlla boroomam ci bépp waxtu ay jikkoom nag mooy sant yàlla boroomam mësu koo xaram kon ku xama koy wax mu ni in kaana asgara ixwaani alxadimi maan fa inna himmatahu min akbaril himmami su fekkee sax moom njabootu maam Mor Anta Sali ko ëppoon ay attam kenn ëpp ko ci yitte boroom itte ju kawe kawe kawe moo nekkoon ma Massamba Mbacké kon loo tax mu àgg ci malaayka yi di ko jooy waaye bakkat yi xasaayidu Muhyiddin Ahmadina nee na xasaayidi yeneen xasaayidi sëñ Tuubaa mi nga xam moo dundal diine jooy nañu sëñ Massamba 1942 bi mu génnee àdduna alxamis jooju nga xam ni xasaayidi dañ ko doon jooy kon waxuma sëriñ Tuubaa mais yar na ñoo xam man nga cee jànge ni ñu toppe sunna jeex ci tàkk ba seen dund gépp ñu man koo def benn xutwa di ci roy mu exemplaire bu ñëpp mën a roy sëñ Massamba exemple na ci te nu xamoon dëgganteem ak góor gu tedd gii di alaaji ma Fall ni meloon ci Seex Massamba am na lu ci xam xam bu baax ni meloon ak njabootu sëñ Massamba dale ko ca sëñ Modou May mi taawu sëñ Massamba Mbàkke ndax kat sëriñ Tuubaa mës a wax ni ne ngeen fasante kóllëre Masamba Mbàkke ku ko fasante wut ak moom it ëllëg ca yowmal qiyaam dinga bëgg mu nekk sa kóllëre ngir nga mucc keroog ba mu ko waxee sëñ Mbay Jaxate ni ko man fasante naag moom kóllëre te dinaa koo firndeel jël rakki boppam soxna May Jaxate jox ko ko mu am ci taawam sëñ Moodu May am ca sëñ Abdul Baaqi nga xam ni sëñ Abdul Baaqi moom ah, Màkka dem naa ba ci xam hôtel yi mu daan toog bi mu daan nekk naari sax dañ ko faan fekk ngir seen aajo faj ngir juboo gu mu juboo ak boroomam ñooñu ñëpp bàyyi ndaa ma amante woon na ak ñoom diggam ak sëñ Moustapha Massamba digganteem ak sëñ Mahmadan Njobbe borom Touba Mbeela digganteem ak sëñ Saaliwu Massamba ñoom ñëpp sëñ Modou Faati Xëri ba ci sëñ Mamor mii sëñ Abdul Xabir ñëpp la bëggante lool liggéey lool Cheikh Massamba Mbàkke njabootam jii tamit jeex tàkk ci njabootu Cheikh Massamba jëlit ci njabootu Seex Masamba ñu nekk ci biir njabootam loolu defe naa fala ak mbokkoo mën a yem guddi gii kon su ko dundalee ci kaay leen nu màggal ki yàlla ki tax yàlla sàkk mbindeefi yanantu bi alayhi salaatu salaam jaare ko nag ci njàngalem sëriñ Touba ak mag ñu baax ñi fi teew ñëpp ndax kat Touba Fall mu xeex tol na fi mu ne noo xam ni kër yëpp a fiy daje te loolu jikko yi waa kër gi la këru diina yëpp a fiy teew te mag moo ci topp nag woyam du génn yenant bi alayhi salaatu salaam moom rek la la bëggoon ci moom rek la nekkoon boo jàngatee seen woy yi sax dafay nuroo lool day nuroo lool ci ni ñu bëggee woon yenant bi alayhi salaam jeex ci tàkk léeg-léeg nga gis koo xam ni dalay wax man yenant bi topp naa ko wàccuma sunnaam dem naa ba képp koo xam ne xool nga sama bind sax texe te yenant bee ma ko may mag ñi fii rek lañu nekkoon sëriñ bi nag fonk ko fonkin woo xam ni moom yenantu yàlla muhammad mësee futa gis ci àdduna ku toppe noonu yarant bi alayhi salaatu wasalaam dafa jeex tàkk ci jëmmi yarant bi bëgg ko lool wutut leneen wutut kenn ku muy roy ku dul yarantu yàlla muhammad wutul dara lu dul alquranul karim te nag lu ngeen fi gis yanantu bee lu ngeen fi gis rek dale ko ci maam aadama alayhi salaam mii maamu ñépp yanantu bee maamam ci baatin maam aadama yanantu bee tax ñu jéggal ko bi mu laalee garab gi bi jaahihi faada bil gufraani aadamu mim baadin xibaatin min anhaarin wa jannaati sañ Tuubaa ko wax ca masiya nee na ci daraja yanantu bi ci la maam aadama amee yàlla jéggal ko ginnaaw bi mu lekkee ci garab googu mu lekkoon yàlla ni ko bul dëkkal ajjana yaag sa soxna xawaa waaye bu leen laal garab ji seytaane man ko ba mu laal ko sunu boroom dàq ko ci eh, aljanaam jooy na koy at réeroog xawaa kële jaar Inde kële Makka bi mu ko waree jéggal ci daraja yonentu yàlla muhammad la ko jéggal loolu la sëñ Tuubaa jàngale nga ni sëriñ Tuubaa waaw digganteem ak noohin alayhi salaam nag sëñ Tuubaa ne la yonentu yàlla muhammad moo tax yàlla jéggal noox yàlla moo tax yàlla sauvé ci li tubaab di wax déluge keroog bi mu duggee ci bat gaalam googu ànd ak ñi ko yaakaar yonentu bee tax labul moom yonentu yàlla noox najaa bihi nuuxan fi safinatihi wa jaahu kaffa yanquubal baliyaati yanquuba tam bët yi mu amaatoon mën a gis bi mu ñàkkee yuusufa ci darajay muhammad la ko jote wat ñu ne sëriñ tuubaa yuusufa nag mu ne ci darajaam moom yanantu bi ci la yàlla génnee ci biir teen bi doomi bàyyi sànni woon yuusufa ci darajay muhammad la ci génne bil mustafa ahrajal mannaanu yuusufa min sijnin matinin wa min tilkal gayabaati kaso bi tam moo ko ci génne sobe ko ndax fala mu ni déet wa saahibu nooni lil mawla tajaa fa najaa bil muntaqa fa tanaaha kullu qummaati nee yanantu bu ñuy wax yunus ibnu matta ci darajay yanantu bi la woote ñaan ci barkeem yàlla musal ko ci jën woow maam ibrahima alayhi salaam nag sëñ tuubaa ne sawara woow bu amee fa qul yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala ibrahim mu ngi ko ame ci darajay yanantu yàlla muhammad bihi gadat naaru ibrahima baaridatan maa salaami wa haza xarqu aadaati kon yenentu yëpp yenentu yàlla muhammad mooy ki leen sobe nu gis ni kooku yàlla boole noog moom mu gën mbindeef yëpp sëñ tuubaa nee na ku xalaat ci yenentu bi kenn xalaat ni kenn nuru na ko ab dof nga bi njëkk mooy sëfiya kooku dafa dese dafa manqué bi ci topp nee na du amati mbégteem sunu borom yàlla du ko dugal àjjana képp ku xalaat ni kenn mel na ne yenentu bi doo dem ajjana ab dof nga dootoo am yërmande yàlla foofu la ko sëñ Tuubaa teg nga xam ni kenn melut ni moom savant yi gën a rëy ci àdduna savant yi gën a rëy waxuma nag como yi savant yi ñoom ñëpp ci topp mbirum yanant bi ci la ñu doxee tuub ku ci tuubul da ngaa mujj nangu bind ci moom xoolal Michael Hart nga xam ne astrophysicien la woon di essayiste bu mag ci Amérique Michael Hart dafa jàngat yanant yi ba xëy nangu ni dëgg-dëgg grandeur bi yàlla def ci moom amul ci ñu njëkk amul ci ñu mujj xoola Rose Garaudy fees dell ak xam-xam daa jàngat yanantu bi jàngat alquran ji yàlla wàcce ci moom mu ni ji wax mënta nekk waxam ndax yanantu bi nabiil ummi la kii la yàlla jox ngëneel xoola Maurice Bucaille cardio cardiologue bu mag la ay xool la daan opéré doomu France la dafa mujj tuub bind livre bu siiw le Coran la science et la Bible Maurice Bucaille ca France xoolal Léon Tolstoï doomu Russie la daa mujj wax ni diine yanantu bi am na ndam ci kaw diine yépp ndax njub gi ci nekk ak dëgg gi ci nekk ak leer gi ci nekk addunaa ngi dem ci kanam ñéppay mujj nekk ay julli xoolal Victor Hugo di doomu France boo xam li mu bind kenn bind ko boo demee ci téere bu ñuy wax la légende des siècles dafa mujj di tagg yanantu bay tëj mu ne isaa sax bi muy wax yanant bi la doon joxoñ xoolal Léon Tolstoï xoolal Alphonse de Lamartine nee na bu ñuy nattale kàttanu nit te yow mi am kàttan gu jaaxal ñépp am xel mu upp jamono am may goo xam ni kenn mësu koo am te yow mi am loolu amoo woon ay moyens nga mujj yilif àdduna bépp sa xalaat di ci dox gañe ñépp te làmboo yërmande bu dee ci la ñuy natte doole doomu aadama ana kan ngeen ñama ñi mee gam-gam leeg yanant bi mu koy nuru ci dara loolu la Alphonse de Lamartine wax daal ni kon yanant bi rek moo fi nekk daal koy nangul xoola professeur Vasselia Vaglieri ca Italie mu nga woon Napoli nee na damaa gis ni lu savant créé lu création bi rëy rëy rëy soo demee ci alxuraan fekk ko fa ma xam ni kon yanant bi mën ta wax alxuraan dañ koo tuumaal ndax moom mënta bokk ci société arabe yi amuñu woon téere amuñu woon am njàng mu xëy suba di wax ak jamono yépp wax ak époque yépp te lu ñu découvrir mu xam ko loolu mënta nekk yàllaa wax ak moom ca la dox ba daal di tuub nga xam ne réew moo dem benn wax la boo duggee suñu réew mii tey fépp a ngi gàmmu fépp moo tax war nañoo dénoncé bu baax ñi làqatu léegi ci clavier yi di xas mag ñi fi mu ne loolu mooy thème principal boo xam ne kuy waxtaan war nga di ko wax ndax buñ ci moytuwul fitna bu rëy dina judd senegal ay xale yu juddu bërki démb jàng tuuti ci ay téere di raddu mag ñi di naq du mag ñi lu ñu wax ñun du dëkk ñimee wax lu kenn mësta ñimee wax na ci internet yi làqutu lu leen neex nu wax ko mag ñi ci mag ñoo xam ni ba ñuy bind seen téere yi ci seen yitte booba am téere yombul lii ñuy jàng ñoom mag ñi romb nañ ko ba muy am ay ñaar seen yitte ci yanant bi seen yitte ci lislaam ñu def lu nekk ay xale yu ndaw làqatu tey di leen xas ci turu diine am ci ñoo xam ni ay financement la ñu am dañu dem ci réewi naar yi jàng tuuti naar yi di leen financé ñuy attaqué mag ñi lu ñaaw lu nekk ñu teg ko ci daru mag ñi ku ko ci moytuwul yaa ngi ci tooke ku ko ci moytuwul yaa ngi ci tooke te loolu nag président de la république war na cee jël matuwaay Macky Sall ndax moom la yàlla dénk réew mi mu jiite réew mi te moom ku ko saaga woon tey balaa ngoon mu lijjanti ku ko saaga woon mag balaa ngoon mën naa yónni ndaw yi ko lijjanti kon nag nun ñi gën a foor ci nun nga xam ne diine bu fi accès ba nga jariñu ci yow mi critiqué mag ñi sa baay bi la dugal ci diine ndax moo la jur sa baay mag ñee ko jox diine diine islaam sa baay judduwul fekk ko fi déedéet judduwul am ko indil ko boppam nda ko fee fekk ci ay mag mag ñi taxawal ko ci xeex ak nekk daj ko dañ dañ ci seen boroom ba sa baay jot yi ñu jur la yow nga jàng ñetti téere saaga mag sëriñ Tuubaa noon na ca masaalikul jinaan wasiatul miidaani laa yuq fiiha ibaau namlatin sulukan fiiha sëriñ Tuubaa nee na xorondom bu lànk suba teel ni duma jaar ci ci diggu yoon wi xorondom bu bañ ni duma jaar ci diggu yoon lan lay wàññi ci yaatuwaayu yoon wi du ko wàññi dara yow da ngaa mën a def tiijaan yëpp di ay dof mën ta nekk murit yëpp di ay dof xaadir yëpp di ay dof am na ñu la mag am na ñu la dàq jàng am ñu la gën a am yàlla ñëpp mënuñoo bokk gëm benn mbir ay siècle ñu koy topp nekki dof am na loo xam ne caaxaan rek la yitte ji mag ñi doon def te tey lu nekk ñi mel nañ ko wax ñi mee koo saaga mag ñi réew mi ni pat kenn waxu leen dara boo duggee ci internet bi sa yaram day daw amul ku nu ak lu mu baax baax ñi mel nañoo def vidéo léegi ndax léegi réseaux sociaux yi moo ubbeeku ku ñime woon a wax démb tey ñime naa wax réseaux sociaux yi ubbeeku na ku mu neex nga def vidéo saaga ko la neex yàq ab der loolu nag war nañ ci jël ay matuwaay ndax tubaab dañu ñu raw ci côté yu bari tubaab dañoo jël jumtuwaay ngir liggéey ci développer seen réew ñun dañ koo jël def ko dund def ko règlement de compte xasanteeg saagaanteeg ngàññante ku neex nga tagg ku la naqari nga xas ko kon nañ ci jóg li muy yàq kat moo gën li muy defar ay magam jëmm jeexal seen dund ci yoonu yàlla ba mu gërëm leen ñu wàcc liggéey ba ciy mag mu doy leen su la doyul lii ful la mooy nga maandu ca bañ a mu doy fi ne mënoo fexe ba ñu bàyyi sunu màggal gii saa bu 18 safar ñëwee dañuy bëbb yi gën a dolli ko ay millions yi dem mënoo ci dara da ngay dee ci xol bu xol bu naqari rek sañ Seex Gaynde Fatma waxoon na nee na yaa xaasidiina imaam annaasi aamatuhum muutu bi xayzikumu raxman wa xusraana ñu ne ko lu tax mu ni fa inna qudrata rabbi ratabathu imaaman mustaqiman rafian ay sumakaana nee na sëñ Tuubaa yéen ñi koy iñaane su yeboo ngeen dal da ngeen di deeg seen mer dong mënu leen ci dara ndax yàlla miy def ci kàttanam ndogalam jiital na sëñ Tuubaa muy imaamu ñépp gën leen a jub xocc def zéro faute sëñ Tuubaa zéro faute la kenn mënta salir liggéeyam déedéet moom même boo ci bokkee te tegoo ci yoon it yow lay wàññi waaye mënoo ko yàqal dara moom sëñ Tuubaa moom zéro faute la doo topp mel ni mbindam ak loo mën a mën a jàng ba ni fii la defee faute loolu doo ko gis moom yenn jàngkat bu topp mbindu sëñ Tuubaa ni fii laa gisee erreur doo ko dégg doo gis fenn bañ ñu la fii la sëñ Tuubaa salité ba ba bokkaale yàlla ak dara doo ko dégg doo fekk fenn fu la sëñ Tuubaa moo manqué war ma yanant bi amul ci mbindam kon léppam zéro faute la sëñ Seex Coro Mbàkke rakkam moo ko wax bam koy woy dani wa huwa salimun min al wa ma nifaqan bi ma imanihi mazaja za kaxtafa muqtafa hatta ka annahuma lawla nubuwatu za sawbaani xat nasaja wa huwa allazi man ata yowman li maskanihi xayril masaakini tuuba min dadin xaraja sëñ Cheikh Coro nee na sëriñ tuuba mooy ki topp sunna seenantu bi wàcc ko benn yoon ba dundam mat waxuma sëñ tuuba ah, wax naa ko léegi sëñ Masamba Mbàkke wàccul sunna cerno maam cerno wàccul sunna sëñ tuuba ko yar sëñ Mbàkke bu su mësta wàcc sunna sëñ tuuba ko yar sëñ aafe noonu sëñ daaru Assane Ndiaye noonu sëñ tuuba doo ci àgg defar na mag ñoo xam wàccuñu sunna maami kee toog sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana amul kenn ku jaam ba toll fi mu tolloon ñiir di critiquer kenn tollu ci sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana ci waxu tànk moo leen dàqa jàng moo leen raw imaam la woon te ñooñu sëñ Tuubaa leen doyoon su la doyul kon dangay ngay maandu ci mbir mi te bàyyi saaga ak tooñ tooñ baaxul sëñ bi daana ko tere daana wax ni moytu leen tooñ ndax kuy tooñ doo mucc tey doo mucc ëllëg te kenn mënu laa musal moytu leen di fayu kuy fayu doo nopp lu mukk te kenn noppal tooñ gi nag ëpp na liñ ci mën mooy dénoncé ko ndax yenantu bi alayhi salaatu salaam moo waxoon ni ku ci gisati loo xam ni dafa naqari la neexul sa xol te neexul islaam neexul ñi bëgg lu baax sañ nga koo dénoncé ci sa làmmeñ su fekkee amoo droit defal sa bopp ak dindil sa bopp su dee am nga droit dindi ko sa loxo nag dindi ko loolu président ko mën dindi président ko mën dindi moom bu ko neexoon balaa 24 heures ñu bàyyi saaga yi léegi mu arrêté wala fu ñu mën a nekk mën nañ leen a jëli ji mu jeex kon dindi moom moo ko man ku ko mënta dindi na nga ko wax ci saw làmmeñ danoose ko mooy lii ñuy def ku ko mënul na ko bañ ci sab xol kon loolu faw nu xam ko jataay yu mel ni ñëpp daje dafay war buñ dajeetee ñuy dénoncé li nga xam ne dafay yàq nit ñi di ko xam bu baax te réew mi fi mu ne nii wa salaam ñëw leen sëñ Bamba ka dane laa tumsikil maala bal anfiq bihil fuqara min baadi ahlika taxraj kulla ridwan ñëw leen tax ko addi Seydina Muhammad ñëw leen jox ko ñëw leen Muhammad soxna yi ñëw leen ku ko yàlla dénk tànga ko joxe ko yàlla na yàlla su mborom faj sa xaajo ci barkeb guddi gii ñëw leen jox ko addi Seydina Muhammad noorun daryaatahu barul xariyaatu amana siyaatu fi sirri wal alani huwa allazi tahara al mawla sariratahu fal qalbu minhu li amri lay soorani wa huwa allazi sumdo fikru wa mantiqa سير وخيمة سر لا من والهمات خلق وصيحسن كما له خالت خيرات بالرسن والقلب مقترب والجود منسكم والجسم منتسب في الفرد والسنن والعقل تم له والفم لازمه وللمه جملة آداب في الأدن xayrul mawaddatu dayrul adaawatu mayri madiatu lil muflixil watani wal aali wa sahbi ma li suri xaalifatan xataa ba xal bi yàlla ma law sallama barke borom Tuubaa yal na ñëpp fekke déwén yal na ñëpp fekke déwén barke borom Tuubaa sëñ Daawdu Fall nu ngi lay siyaar bu baax bisimilah sëñ Ablaay wéyalal kon ñu ngi sant mbokk yëpp di santaat bu baax waa kër gi sëñ Basiiru Mbàkke waaw ñu ngi santaat bu baax waa kër gi kóllëre gi ñu jàpp te dara du ko dindi ba keroog nuy fekk sunu wéejur bu baax kóllëre gi sëñ Tuubaa keppalal ko lislaam keppalal ko ñuy ñu baax ñu leen koy seereel sëñ Mahmadan Mële ak sëñ Moodu Mële ak seen rakk yee sëñ Useynu ñoom ñëpp ak sëñ Alsaan ñu ngi jàpp kóllëre gi di ko sàmm ak ñun dañuy toog ba ñu yàgg ñoom ñu woo ñu nemmeeku léeg-léeg nu jaar ci ñoom teraanga ju nekk ñu ñu koy lebal te sëriñ Tuubaa rek a tax ak suñu wéyjur wu ni boole kon yàlla na leen yàlla yàggal te defal leen wér dolli seen sutura dolli seen teraanga dolli seen xéewal lii kat la nu wéyjur yi amal nag jur nu fi ñu war a jure yar nu fi ñu war a yare jàngal nu li ñu war a jàngal teg nu ci yoonu njub liggéey loonu teg nu ci lu baax bàyyi ndaama wàccoon ak nun ñépp nag lii mu fi eh, jëmbët te yenant bi alayhi salaatu wasalaam wax ni képp koo xam ni sos nga lu rafet képp ku jëfe loola ñaari pay ngay am yow mi ko sosoon danga am pay gi payuk sos gi ak payu ku ci royaat kon def na loo xam ni ba keroog bis pénc ba sunu borom di ko fay waaye ñi ko fi bàyyil ñu ngi koy def li nga xamante ni lii rek la bëggoon lii rek a baax lii rek la bëggoon lii nag mooy li neex sëriñ bi mooy li neex seex ma sàmba mooy li neex yenant bi lii mooy ak yoonu mbaax kon yàlla na yàgg faal nu ngi leen di siyaar bu baax nu ngi fedd li suñu kóllëre gi yéen te yàlla rek tax jàpp nañ ñu jàppale ñu te yàlla rek tax moo tax dakaar ku ne xam na ni ñun ñii di waxtaan ah, dakaar day fees ak programme waaye yépp dañ koy mën a muñ ngir ñoom nit ñu téye ak liñ ñu lebal ci ay teraanga at mu fuñ mën a fekk bu ma absenté fii rek mooy mu fekk ma bitim réew moo fekkul Europe fekkuma Amérique fekk ma fii senegal maa ngi ñëw di ko euh, dundandoog yéen ndax kóolare gu ngeen ma ji man yàlla na yàgg lool nu gis ziyaar njabootu seex ma Masamba gi fi teew waaw di leen ñaanal di ñaanal sunu sang ba ca Touba Serigne Mamor sàmba yàlla yàggal ko fi lool te dolli ko ak wér ci barke wéyjuram tedd wa seex ma sàmba ci barke wéyjuram bu baax wa soxna ami Aminata Amar yàlla na fi yàgg lool te wér ak njabootu seex ma Masamba gépp loolu ma wax daal ku am royukaay bu toll ni sëñ Masamba am nga lépp ndax moom moom làq na ngërëmu sëñ Tuubaa ci lépp te ñim bokkal jamono ñëpp maase nañ ñi kenn gën ëpp ko woon yitte ak xam-xam ak xikma ak tabe sëñ Bay Jaxate dafa am suba joo xam ni nee na booba junni kenn mënu koo laal junni sëñ Masamba may ko junni teg ci di reetaan mel ni ku ko xeeb te nee na booba junni kilifaay gis junni kenn du ko gis neen ndax booba temps junni man nga cee dund un du jeex un at nee na suba teel sëñ ma sàmba terale ko kayitu junni ba pare di ree ni ko lii de amul solo bariwul jëla sëñ Mbay Jaxate woyam woy woyam woyoon wu siiw wa ne xarit bu lay jariñoo kay lor asal jafewul xarit bu lay mayu junnee kay jariñ jafe na am naab xarit bu ma may ay junni teg ca di ree te naa ma lii bariwul bi lépp xarit jafe na ma sàmba mbàkkee ne cas bis ab junni ni ma am sëriñ bi yàlla na ko may loo xam ne li jafe na kon kooku royukaay la ci wàll yépp dippi sëñ Tuubaa ci wàll yépp sëriñ bi gërëm ko ci wàll yépp ku ko am ci royukaay am nga bu mat sëkk yàlla na nu ko yàlla fayal ñi nga xam ni dëddu nañu te jiitunu yàlla na leen yàlla dolli seen yërmande ak seen leer yàlla na leen yàlla jéggal ci barke yanant bi yàlla bu mu nekk sunu mujj ki daje yàlla nañ fi dajewaat ci barke yanant bi yàlla faj aajo yépp yàlla mën na ko yàggal fi sëñ Muntaxa Basiir ndax sagu sag wi la nag sag sag wu rëy sëñ Muntaxa Basiir na fi yàgg te wér sag wu rëy rëy la corona bii gis ngeen lim ci def le 11 août wala 11 juillet lim ci def ku ne gis na ni mu defee booba fekk na corona bi tëj nu fépp te sunu boroom am na lool moo ko yoral boppam de kum ci yaatal may la ca dara dangaa am cërëm wax naa ni boo demee ci jeexitalu sóotu luqmaan yàlla nee na yii maa ko yor de bàyyi ma ko kenn inna allaha indahu ilmu saa wa yunazilu lxaysa wa yalamu ma fi l ma tadri nafsun maza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut inna laa huwa alimul xabir yàlla nee na maa yor yooyu jigéen li muy jur programme yàlla la taw yi li koy wàcce programme yàlla la bis pénc kañ la programme yàlla la jëmm ji nekk li ngay lekk ëllëg ci wërsëg programme yàlla la fan ngay deewee programme yàlla la kon su taw bi cate mu woote ñu dellu ci xasaa yi di nga xam moom la sëñ Tuubaa dénkoon sëñ Masamba ñu jàng ko suba ba tàkkusaan mu ne ñaar laay ñaan yàlla sama borom na fi mbas mu jóge na taw bi ñëw te nekk na nawatu jàmm ndax yittewoo nañu yéen ñëpp seere ngeen ko kuy jullit ci réew mi ak ku dul jullit ñëpp gis nañ taw bi ni mu demee fépp mbas mi tamit ba mu ko waxee fekkoon na jamono yooyu 1000 cas di am ñu dégg ay 2 cas ak léegi 1 cas ak 0 cas loolu jubóog yàlla koy def kon moom dafa sagal islam toog toogaayu sëñ Tuubaa nañ ko ñaanal mu yàgg fi te wér sëñ Muntaxa te ñaanal ko njabootu islam gépp te yaatal diine islam mooy te ndiku di teqale teqale baaxul ku nekk kër ga la yàlla boole fexeel ba jëfe ndigalu boroom kër ga di daw ay tereem loolu rek a ci am solo jullit képp kuy julli waxtu wi juróom féete nii penk bëgg alxuraan di roy ci sunna yenantu bi sa mbokk la bu ko jàppee mu ko noonu jullit jullit mooy mbokkam léeg-léeg sax nga am kook yéen a bokk lislaam balaa ka nga bokkal ab tarixa di ñëw kookaa lay njëkk a taxaw kon nañu mooy tandiku di tàqale tàqale baaxul du jur mukk jàmm na ni boole mag ñi foofu lan nekkoon terminus bi mooy yenantu yàlla muhammad waaye ku ne sañ ngaa xool yoon wi la cay yóbbu nga jaar ca